Ah, tey nag ñu ñëwoon pour waxtaan ak yéen ci lu aju ci ah, ah, shahru ramadan buñ ne shahru ramadan mooy weeru koor waaye weeru koor ku ne xam na ni du lekk bàyyi lekk du bàyyi naan bàyyi sëy yooyu nga xamante ni mooy zawahir yi mais beneen xikma bu ci yàlla def ci wéru koor boo xamante ni mën nañoo lim lépp waaye dañ ciy fexe andi yenn nat rek yoo xamante ni dañ koy jële ci alquran ak ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla ku ne xam ne daa bokk ci turam yi asmaullahi alxusna alxakim baatu xakim mustaq la min alxukmi ومن الحكمة بعد لو جلتي حكم بفري أتي ما يجلكو تي حكمة بفري سازس أمت يلا حكيم له في جميع أفعاله وأقواله وأحكامه نحي الله تي تيتلو حكمة أكمالم أك ndax yàlla amul benn mbir boo xamante ni yoonal na ko ci attey lu dul ne baatu xekma bu màgg mi ngi ciy feeñ benn kay ñun ñoo koy xam walla sax ñu gindeeku ba mën ci ak ci sunu xel wala ñu xam lenn li am lu ñu ci nëbbatu lu ñu ci lu ci nëbbatu kon loolu nga xamante ni mi ngi ci weeru koor lañu bëgg a andi lenn nag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 كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في سوره البقره اي 183 كون يغني الصيام وسيله لتحقيق التقوى بن جمتو كايلا بن جوك وايلا بني دغله سونو تقوى سونو رغال يالا ناخ تقوى هو فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه تقوى بروم خم خم نم نم جف للا يالا ديغل باي لم لا تري لول موي تقوى كونكور من اعظم الاسباب تي بي غنا ماغ تي جوك واي لا بوك دي ديمبالي جامبي بور مانا تاخاوي لوكو يالا ديغل موتا خم خم رحمهم الله تعالى يالا دلينا يالا يالا جرم yërëm leen ñoom tudd nañ ci yenn yenn ponk ci loolu mais yëpp nag min xisaali taqwa ci jikkoy ragal yàlla la bokk dañ ci andi lennal rek bit ñëkk moy koor wasilatun ila shukrin niami bunt la bu ñu mën a jaar ba sant xéewal yi yàlla xéewal nga xamante ni wa in taudu nicmatallahi la tuxsuha yàlla xéwal ñu xéwal bu ñu ko doon compter mënuñu ko lim waaye koor it benn la ci bu nga mën a jaar ba sant yooyu ndax siyaamu siyaamu huwa kafsun nafsi nafsi anil wa shurbi mooy nga fekk sa bopp sa bakken ci bàyyi lekk bàyyi naan mais it bàyyi sëy te lii min niami wa alaha bi gën a màgg ci xéwal yi gën ci ak la bokk terewu nag ci yooyu diir la boo xamante ni diir lañ ko utal ndax xéewal yi majhulatun dafa bari ba xamuñ yëpp moo tax dangay gis lu bari ci boroom xam-xam bu ñuy wax ak bakken dañuy kay wax na moytu nangam moytu nangam moytu nangam ndax mooy tax mën a am nangam mën a am nangam boo demee ci euh, abul abul fath al busti dengan aqbil al nafsi fastakmil ila fa anta bin nafsi la bil jinsi insanu eh, na nga tëtmal jëm ci sa bakken nga fexé matal ay ngëneelam lepp ndax ci sa bakken ngay nekk nit du ci sa yaram ngay nekk nit mais ci sa bakken kon nga gis ni bu nit ki defare bakkenam rek ci yooyu nga xamante nii moo koy xiir ci mu def yeneen te mu koy jaare ci jox ko mu lekk jox ko mu naan bu defaree ba bakkanam rek ba xam lim ci jël wala mu di ko bàyyi rek ci lay amee ngëneel goo nga xamante ne bakkan da koy soxla bi ko ñaareel mooy koor wasiilal benn mm, jumtukaay la mooy la bu ñuy mën a demee ila mu muharramat bàyyi yàlla xaraamal ci ñun ndax bakkan bu ommatee jëm ci li yàlla xaraamal li yàlla daganal ci moom li yàlla daganal ci moom yàlla ne ko tey jii aaye naa la ko ci weeru koor bakkan bi buggu ngëneel gu nekk ci moom bugg ngërëm borom ba tax mu bàyyi loolu ak ragal bu ko lekkee ci bëccëgu weeru koor ëllëg yàlla mbugal ko ci ba tax mu bàyyi ko donte lu dagan la kon dafay rawati nag li xaram ci moom budul weeru koor kon ñu kon korit sabab lal littiqaa'i maxaarimillahi ben jumtukaay la bo xamanteni man nañ ci jaar bo moytu lu yàlla ci ñun motax ah, muhammadu busairi di wax ci burdam fala tarum bil maasi kasra shahwatiha inna taama yuqawi shahwata nahimi nee bu sakku ci bakkan pour dam appetit bu ko sakko ci jox ko lek jox ko mu nan ndax jox bakken mu lekk jox ko mu naan day dëgëral appétit day dëgëral ak zawqam ci yeneen yi bi ko ñetteel mooy dañuy gis ni euh, koor ak takliibu an shahwati day not nit ki wëlis yi nga xam te ni mooy ay appétit ndax bakken bu lekkee ba suur rek dafay mébét dem ci nga xamante ni mooy shahwaat yi yi nga xam te ne moo neex ci bakkan ndax bakkan dafa am ñu neex ci moom moo tax nga gis ñaan la euh, xuffatil jannatu bil makaarihi aljana dañ ko wëraleeg yi nga xamante ni moom la bakken sip bakken bëggu ko ay julli ay woor ay aj màkk yooyu nga xam dafa am coona di jàpp ci sedd yooyu lañ jël wërale ko li nga xamante ni mooy aljana wa xuffatil naaru bil sahawaati safara nag dañ ko wërale yi nga xamante ni mooy yu neex yi nga xamante ni lekk ba suur naan ba màndi du nekk fu neex yooyu la ñu safara te bakkan yooyu la bëgg moo tax bakkan pour mu dem safara gën a yomb pour mu dem aljana ndax yu neex yooyu ñu wëralee safara toujours uti yu naqari ñu wëralee aljana nag yooyu da koy moytu toujours moo tax kon koor dafa bokk ci taxallub an shahwati yi not bakkan ci ay appétit yooyu ndax bu demee ba suur rek day uti yooyu nga xamante ni mooy ay shahwaam ay bànneexam bu demee ba xiif nag day tere nag am ma taxawaaxu lépp loo xamante ni bëgg na ko bu xiifee day sori loolu loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci xadis ne yaa machara shabaab yi e yéen ndaw ñi man istataa minkumul baata ku ci ku ci mën a denc fal yatazawaj al baa mooy bu nit mënee am lu mu canale mana a soxna mum ko dundale ne ko ko man na nga denc fal yatazawaj fa innahu aghaddu lil basar ndax loolu mo geuna meuna gemmal a gëmmal sa ba doo xool leneen lu haram ci jigen wa ahsanul farji mu mën a gën a ñongal nit ki ci payam wa man lam yastati ku ta channel mono takku soxna nak mono ko dundal fa ah, alaykum bi sawmi kon na ngeen wor fa innahu lahu wija bu ko defee na ngeen woor ndax boo wooree woor bi dina téye sa zawqu sa xarisa sa appétit boobu nga doon am ba saxal dootul nekk ci jigéen kon taxol woor kon ngay gis ni kon ndeke ndeke koor it bokk na ci xikma bi yàlla def ci koor pour ñu ne di woor loolu it jëla bokk na ci koor it mujibun rahma koor dafay andi yërmale ci nit ak moroomu nitam dafa andi ñewante ci digënté nit ak moroomu nitam day andi ñeewante ci nit ak miskini ndax ki wor bu mosee ñàkk lek mos ñàkk nan ndax koor ki am ak ki ñak ñet ñoo ci bokk yam ki nga amono moy chaque jour mu lek chaque jour mu nan du yam ci nan lek waye day lek li gëna neex lek li gëna euh, nan li gëna neex bis ñoo ñu ko kon li doto ko li doto ko nan mu xalaat ne ah kon kan nek am ñoo xamante ñoom lañ dëkke buñu lek buñu nan, ci waxtu bu nek amal sax ñu yendoo ko xalam da fay delu ci ñooñu bu ko defé mu am yermale ci ñoom am ah, ñewante ñoom bu ko defé lool mu koy pousser mu wëlbatiku di gaaw di dem di rafetal jëm ci nit ñi ci am ñewante ci miskini di leen jox ñu lek di leen jox ñu nan ngir xamna ñak lek ak ñak nan ni mel ci nit koor bokku na ci hikma yi yi yàlla def qaxru li seytaane yi nit ki da ciy not da ciy not seytaane ndax seytaane yàlla du ko bind mu am ak doomu aadama di ko jax-jaxal fu mu toll mais di ko poussé ci muy def loo xamante ni ëllëg da ci jële mbugalu borom bi toujours pour nit ki not seytaane nag na fexe di koor daa bokk ci xikmatu saw mi ndax loolu euh, day tax yoon yi seytaane doon jaar di ñëw ci moom mu fatt ko tëj ko seytaan doot ko mën a jax-jaxal dootul mën a def lenn ci moom loo xamante ne dina tax muy may yàlla ndax euh, yonent bi moo ne a seytaanu yajri min ibni aadama majra dami ci xadis boo xamante ni xadis bu gudd la ni ko yonent bi nettalee sallallahu alayhi wa ñu jële ci safiya nga xamante ne soxna yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam safiyatu bintu xuyay radiallahu anha dafa musa génn benn bés dem fekk yonent bi fa mu doon defee itikaaf dem ziyaare ji ko toog fa waxtaan ak ak moom diir ba mu yàgg mu dal jóg yonent bi di ko gunge bi ko yonent bi di gunge pour mu dellu fa nga xamante ni fa dëkkoon ci këru Usaama ibn Zayd mu génnee am ñaari saxaaba yo xamanteni ñi ñu ngi nekk dëkkoon ansar da li ñew tass ak mom bi ñu tass yonte be ñu gëna dëgg seen tang gëna gaawantu pour bu yonte bañ leen gis yonte bi dal leen wo de e eh leen bañ ñew mooy leen ki safiyatu bint hay sama soxna la ñu ne ko ñu ne ko ñu ne ko subhanallah ya Rasulullah e eh, yonte bi ñu dañu ngi jéggelu jublu jubluwuñ ci won leen de ñoo ngi jéggelu yonte bi neen inna seytaana yajri min ibni aadama majra dami seytaane dafay daw ci deretu doomu aadama day daw ci doomu aadama comme ni deretam di dawee ci moom yàlla may na lool seytaane ni deret di dawee ci nit ki seytaane noonu lay dawee ci biir nit ki te dama ragal xasiitu an yaxziba fi qulubikuma charran dama ragal seytaane sànni ci seen xol loo xamante ne ay la leen di jural wala mu jural leen musiba ngeen ñaaw njort nan ki yënd bi tax sox taxaw nam la wala du soxnaam moo tax man téye leen ne leen ki ngeen ma gis sama soxna la Safiya la kon sik amul ci ne deret mi ngi juddo ci mi ngi juddo ci bu nit ki di lek di nan bu nit ki dal dali nan molam fi setan daan jaar ci mom di daw day gëna ubbeeku day gëna ubbeeku ndax deret ji loolu moo koy alimenté ci nit ki lekk ak naan fii deret ji doon jaar day gën a ubbeeku ko defee seetaan day am moyen moom it di jaar foofu nag kon nit ki bu demee boo wóor nag léegi yooyu dafay tëju ni muy tëjoo moo tax seetaan loolu am jaaruwaay ba mën dugg ci place yooyu dal dem di koy jax-jaxal kon ñu ngi ni kon bokk na ci xikmatu mashriati sawm ah tëj bunti seetaane doon jaar pour di jax-jaxal nit ki loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale moo tax mu ne fa bi siyaami tadiqu majaari seytaan ci koor yoon yi seytaan daan jaar di dugg ci nit ki dafay tëju wa yaqilu nufuusuhu dootul mën a am accès ci nit ki léegi moo tax woor bokk ci nga xamante ni yàlla yoral na ko pour nit ki mën a défendre seytaane ci moom bu ko defee kon euh, yem foofu ci pàtt bu njëkk bi incha allah wa bi tax tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullah